ñu ngi ci cumikaayu naaru sogaas gis nga mi ngi noonu mi ngi takk ngembam pour dem ci biir géew bi boo xoolee moo ko jiitu ci làmb boo xoolee nee na moom day bàyyi ba bëree ba pare door a tuus loolu la wax loolu de gëj naa koo gis naaru sogaas sol na beneen yére ma nga noonu la champiyon de xam sa cosaan ma ngay noonu sol na benn yére ma ngay waaj dem ci géew bi ma nga noonu l'ancien est là xaw ma fan la teg ne damay bëre ba pare dooru tuus waaw gis nga ko noonu ak forme bi jàngat leen ko bu baax a baax a baax décortiquer leen dama leen bàyyi ak Ablaye en ngeen décortiquer ko non non non non non non je vois que ne il a maigri. je vois que ne il a maigri waaw dem na ci géew bi booy xool yóbbuwul ay cummikaay yu bëri booy xool yóbbuwul cummikaay yu bëri yóbbuwul ay butéel yu bëri kaay eh xoola Jackson kii ban la sangoo wala lan la sangoo wala peinture eh Jackson li muy def ni jàkkaarloo naa adversaire am naaru sogaar bu ko takkal walla soow la soow piir wala meew wala peinture peinture bu jaune naaru Sogas a ngi noonu qui dégage la sérénité l'ancienneté regardez les supporters de Jackson Jackson a ngi noonu di wax ak ay supporters am Jackson ba naagu woo kii maa ngi tub jine la sangoon na benn butéel nañ ko beneen butéel man li ma jaaxal naaru Sogas li mu andi forme bi bu andi moo ma jaaxal naaru Sogas ëppoon nii naaru Sogas toll woon nii yàgg na ci géew bi yàgg na ci làmb ji Narou Sogas booy xool ñetti butéel la sangoo xaw ma quatre butéel ma nga seex benn fas bu bi ne prip lan mooy am Narou Sogas lan la andi tey waa loolu den ko xool waa kii ba tey génnagul. papa gannaaw bi ma la nuyoo sama toma tey boo jàngatee naaru Sogas bi ma ko xoolee forme bi mu indi booy xool cumikaay yi tamit bariwul lan ngay jàngat. waa mais euh, dafa mel ni fonkatul làmb ji te it nag tey moom euh, pour nga xalaat ne day daan moom xel xalaatu ko ndax mën nga andi sax benn état mais bi mu sumee ko nga xool ko danga naan sax ki est-ce que. sa yaram sax day daw danga naan entraîné wul. ah ak it nag euh, yaakaar bi ñu amoon ci moom mais daal xam naa ne nii mu continuer nii nañ xool ci kanam tuuti. mooy xool bu dee li sax bëriwul. non dafa mel ni dafa ñëw rek pour jël si reliquat am dem yoonam. te làmb loolu taxu koo jóg làmb loolu tax koo jóg xam naa ne daal làmb dañ naan ku juum daanu mais tey moom buñ ne reenu ñàmbi la nit ñëpp xam nañ fa muy demee pour pour mu daan noonu luy bett nit ñi lay doon waaw parce que ndul benn état bu wane ne sax day bëre si waaw wanewul sax. tuusul sax tuusul dafa non non non. ñenn day bàyyi ba bëri ba pare door waaw lii nag nañ ci waxtaan ak ñiy tëgg làmb bëgg combat neex mais di boole combat yoo xamante ne amateur nañ ci gis seen bopp loolu day am solo. Daaru Sogaas lan ngay jàng. waaye jàngat gi mooy diggante mag a gone la Naar Sogaas tey dañu doon xaar ci moom mu bëree bëri mag jëm ko juumloo waaye form bii ñu gis pour mu téye xale bi dina jafe soo nekkee mag it âge tuuti na am doole joo téye mën a téye say bopp mais tànkam yi mu téye moom dooleem ci boppam ndax tànk yi ma gis su xale bi maamee ci kawam su arrière dina toog su fekkee bëgg naa des ci làmb ji bëgg di lekk xaalis. foog nga mën a am benn doole boo xam ne di ko mën a téye sa sa sa làmb pour mën a am yenn xale yi mais li mu indi nii bëre ci sax wóorul ndax mën ngaa bëre bare indi blessure boo xam ne dootoo baax waaw. maanaam la ma sama chéri mu ngi si jàmm alhamdulilah. tey Iba boo ma xoolalee Naaru Sogas ban jàngat lay am forme bi. booy xool tamit tuusul tamit. ba pare nee na day bëri ba pare door a tuus boo xoolee ci jëmm ji ak melokaan tey. waaw li may jox daal mooy. Euh, kële moo gën a pare daal Jackson Junior moo gën a pare moo gën a pare fonk combat ba nag c'est autre chose mais xam naa ne fougue de jeunesse bi euh, Jackson Junior andi gisuma gisuma gisuma gisuma naaru soogaas attan ko parce que at euh, naaru soogaas liggéeyul loo xam ne tey lu mën a dëkku kii di Jackson Junior si wàllu doole. man dafa xaw a daw. may fàttali combat Gris ak Abdou Diouf bi amoon fii bi paase. Abdou Diouf dafa simmeeku ñëpp ne Gris mooy daan ñun nag du ñu dugg si biir géew bi mais parfois a à force nga si yàgg da ngay gis mun nga am na loo mun a décor mun na am loo làmb nag dafa bëri surprise mais lii pour surprise am fi dina jafe lool. bu daanee sax lii nii mënu ko continuer. waaw non munul continuer il faut il faut kii xam ne dafa war a jàpp làmb comme liggéeyam. jàpp wala bàyyi. jàpp wala bàyyi daf si war a def àqu taala parce que am na ñoo xam ne dañu bëgg naaru soogaas. am na ñoo xam dañuy nooree naaru Sogas. daan ñëw def ambiance. ambiance bëggal nit ñi moo tax ñu tuddee ko borom borom caaya bi bu ñëwee sol caaya bu bi ñëw fecc bëggal nit ñi ak grand mbubb tey bu deful loolu dafay xaw a jaaxal nit ñi donc tey ak forme bu mu andi vraiment dalul sama xel si li la lay jox parce que physique bi booy xool nekkatu fi deful ambiance tuus. xam nga dama dama dama dem ba fekk ko ci cumeekaayam ma xool naaru Sogas gis ko sax mu ma ne ko naaru tey lan moo tax euh, euh, tuusoo te tey stade bi ñëpp tey sa tuus moom lañ doon xaar mu ne ma tey du ma tuus ma ne ko tekk ji ma gisoon ci Tapha Mbeur keroog tey loolu moom la ñu gis ci yow mu ne tekk ji fii ma nekk la waaye bu ca kanamee tekk jooju na dañ mais bëre mag la ak ak xale euh, Jackson moo gën a féete ndaw naaru sogaas ku ne xam na ni at yi mi ngi dem te say at nu muy gën di dem sa sa doole di gën a néew mais Jackson tamit na def nang mbokk yi ñu ngi jëm ci le grand combat de la soirée drapeau Mame Diarra Fam Guèye production moo ko dëgg ànd ceeg euh, son staff sabi buñ ko waxee den tudd Abdoulaye Ndiaye mbokk yi booy xool li nga xam moom mooy forme physique bu naaru sogaas jaaxal na ñu bëri tey ci làmb ji mais nag je vous donne l'info moom naaru sogaas démb lay door a accepter combat bi parce que dafa defe ne woon combat bi dootul amati ba dafa doon réclamer maanaam da doon sàkku pour ñu yokkal ko Musique yi Dieye production loolu la def moo tax combat bi préparé wu ko sérieusement ah d'après mes informations nag liñ ma wax Jackson moo ñu wan ginnaaw Naaru Sogas moo ñu wan kanam l'expérience face à la jeunesse mais Jackson bu mu yóbbaale fukk de jeunesse am Naaru Sogas booy xool tey àndul ak waa écurie xam sa cosaan ñeneen laa gis ñu àndal te andiwul forme andiwul forme mi ngi arrière c'est l'expérience c'est l'expérience expérience lay bëree attention au coup fatal attention au coup fatal Jackson bul naagu ndaanaan ngay bëreel nag donte il n'a pas bien préparé ce combat donte préparé wul combat bu la fukk jeunesse yóbbaale dal moo lay mën a génne ci combat bi xel moo la ci mën a génne Jackson moo ñu wan ginnaaw attention au coup de Naaru Sogas attention ay dóoru Naaru Sogas nag loolu rek laa mën a wax parce que avec précision lay dóor moom buy dóor day xool te mag buy bëre la ah combat bi boo xoolee da naan lii du combat combat bi boo xoolee da nga lii du combat dégg nañu les analyses de Max Mbargane Saliou Ba manager. Ibou Kane mbur sunu làmb faatim na baax Dakar Actu Naaru Sogaas Jackson mi ngi dox ci kawam Naaru Sogaas tey tuusul dafa ne day bëre ba pare te loolu làmb dàq na ko jàpp na ko daan na ko jàpp na ko attention Jackson rëpp na attention aux erreurs de Jackson erreur jeunesse Jackson mi ngi dóor Jackson mi ngi dóor wéyale na ko Naaru Sogaas mi ngi jéem Jackson tagal na ko daan na ko daan na ko daan ko normal. c'était eh, Piramal. jàmbaar la mais daanu na jàmbaar la mais daanu na il n'a pas préparé ce combat démb lay door a accepter combat bi dañ ko yokkal xaalis mu jël combat bi waaju ko. waaju ko bëree waaj la jàmbaar la jàmbaar